Euh, état bi est que réagir na. non ba tey dégg waxuñu dara dégguñu dégguñu dara loolu mooy problème bi quoi xam nga ñun ñun defe naa ne je ne pas euh, manque de euh, de respect la wala peut-être dañuy soofantal li ñuy def wala peut-être dañ si dul faju lu dund li ñeneen ñuy dund leneen li xëy na tamit dañ nii ñii lu ñu gréew gréew dañuy assurer urgence yi mm-hmm. parce que xam nga kii liggéey ci doomu aadama même man bi su liggéey ma nekk ci physiothérapie xam nga tey ji su ma amee malade moo am ABC Euh, ma war ko rééduquer. Mhm. rééducation dafa am protocole boo xam ne dama koy teg. ci biir protocole boobu may teg man woor na ma ne suma ma toogee une semaine jëluma ko li ma mhm. liggéeyoon yëpp dama koy perte. dama koy yàq mhm. oui. comprendre donc conscience boobu ñu am ñoom loolu la ñu xam. ba lu ñu wax wax dañuy grève am na loo xam ni duñ ko def parce que xam nañ la muy jur ci malade bi. xëy na moo tax ñu ñuy soofantal. mais bu leen wóoroon ni par exemple tey jii bu ñu demee dina am ay conséquences yoo xam ni ci ñoom lay doon parce que bu ñuy soofantal dinañu woo waxtaan ak mais li gën a moo di ngay toog di bind di du la wuyu ngay toog di waxtaan xam nga gis nañ ko sama yeneen collègue yi nekk bi yeneen organisation syndicale mhm. bu ñu demee ba jël ay vaccin bu nu jëlee intrant dem di ko delloo ne dootuñu vacciner mhm. te ñun xam nañ li ci conséquence u ñàkk a vacciner xale parce que ëpp na ay presque dix antigènes mm-hmm. muy coqueluche diphtérie tétanos poliomyélite rougeole ba ay feebar yu mel ni comme ay méningite mm-hmm. yooyu boo toogee ay moom moment def loo ko ay épidémie mën na fi éclaté wu est ce que état day xaar ba loolu éclaté wu muy dem muy dem muy dem di ko jéem a di ko jéem a rek mais mais mais est ce que newul ne masla bee leen bëgg a xañ lu bëree bëri aussi waa mais xam nga boo yoree boo amee li nga yor c'est-à-dire nit mooy xam lu mu yor mm-hmm. ak mu ngi mel ne rek nga yor bombe à fragmentation bi mu koy wax na nga xam ni nga koy utiliser tey jii boo demee États-Unis ka hmm. yor bombe atomique bi defe naa ni mu yor ne buñ ko bàyyee ci yenn loxo bu ñu meree rek mën hmm, jàngal c'est-à-dire hmm. léegi la rek ngay gis nit ñi di ci dugg nii mais bu njëkk ku ci mës a dugg parce que c'est pour assister sante waruñu sax grève loolu nag ba tey moo nekk ci ñun te loolu ñu yàlla mu denc ci ñun quel que soit alpha ak lu mu métti métti ak lu mu am salaire salaire bu bon du ñu tere lii suñu devoir parce que ñun dañu gëm ni lii jaamu yàlla la te ñu ngi ciy jaamu yàlla yal nañu ko yàlla fay fay nag faju yàlla du xaalis bu bëri bu ñu la jox man toog naa fii léegi léegi suba benn malaat ñëw na def ci saagam jënd mbuus ne dafa kontaan ci liñ ko defal am lu ma may waaw te chaque jour laa la wax de bu yàlla def nit kontaan xolam sedd mu jënd mbir mhm. mbasin wala lenn ñëw jox la ko mhm. leneen li gën a li gën li gën a li gën a baax mooy ay mag la ñuy faj ñu toog ba ci ak ñu ne ñu tàllal sa loxo ma ñaanal la di ñu ñaanal. Mm-hmm. loolu lu am solo la. mais conscience conscience boobu la ngeen am xanaa médecins yi amuñu ko d'autant plus que ñoom médecins yi chaque jour nga dégg la ñuy grève ñoom. ah mais ñëpp a ngi grève c'est tout le monde qui fait la grève mais xam nga grève ne signifie pas xam nga boo nee grève. grève te yéen a bokk secteur santé bi aussi. ah médecins yi ñu ngi leen di dégg ñuy grève des fois. mais ne conscience bi conscience bi conscience bi nekk ci yéen xanaa nekkul ci médecins yi ñoom. mais c'est tout le monde. Mm-hmm. tout le monde. Le médecin, il n'y a pas de distinguo entre les autres. Hein. Le médecin, c'est un corps. Mm -hmm. Comme nous sommes corps physiothérapeute, nous avons un cursus du niveau de, du baccalauréat jusqu'au niveau du doctorat. Nous aussi, nous avons un cursus du niveau du baccalauréat jusqu'au niveau du truc. C'est un corps. Ce même médecin-là. Madame, il y a beaucoup de gens qui Il n'y a pas de distinguo. Il y a beaucoup de gens qui On a l'habitude de faire mm-hmm. des distinctions. Même l'infirmier, il a un plan de carrière, de doctorat. on est deux ji tey jii le médecin neurologue. Mhm. bu amee ku def AVC. obstacle bi lay levé bu paree man la koy envoyé moi en tant que physiothérapeute maay occupé ci volet rééducation bi lay demee. comme ça que ça se passe. Mhm. donc du distingo benn mhm. suñu biir syndicat yi ay médecins ngi ci ay infirmiers ngi ci ay lépp ngi ci tous les corps sont dans notre organisation syndicale loolu mooy wax di donc bu ñu stigmatiser benn corps. yaakaar ni ñoom kese la non c'est pas c'est pas c'est pas euh, non non c'est tout le monde c'est tous les travailleurs tey jii moo nee la bloc opéré wu non parce que boo gisee ma pose la question bu ni mel parce que dama gis ne récemment am na ci ay travailleurs yoo xam ne dañu mm-hmm. mm-hmm. a leen a a a a a dañ leen a jox ci dama ni la man mm-hmm. dama bokk ñëpp jaboote xam nga dama nekk organisation boo xam ni corps yëpp a ngi ci am ñoo xam ne dañoo choisir organisation boo xam ne benn corps la man xam naa liggéey wax bu vous parlez SAMES parce que ñoom ñoo jël exclusivement ne c'est un syndicat de médecins oui. man jëluma exclusivement man dama ni man hôpital moo fay liggéey c'est de la porte à la morgue donc ñun suñu organisation syndicale ñëpp a ngi ci parce que ñun bu ñuy déposé suñu récépissé ñett ñi ko déposé bokkuñu corps médecin ngi ci boo demee ci récépissé bi parce que yàlla docteur Mohamed Ly qui a qui fait partie de ceux qui ont déposé c'était il est dans notre organisation syndicale donc amuñu amuñu amuñu man du man nekk di stigmatiser benn corps wala lenn parce que man pour man ñëpp moo ne maintenant am na ñoo xam ne nag mhm. ils ont pensé que peut-être dans le système peut-être ñoom la ñeneen ñi bokkuñ ci mhm. et là buñ ko defee moi je dis que juum parce que tey jii foofu ngay liggéey noonu ki ma woo téléphone sànq bokkul ak yow. ki nekk technique bi foofu bokkul ak yow yow yaa ngi ci micro bi. ba tey jii yow dong nga yoroon sa micro boobu defe naa ni maa ak yow du la ñun ci noonu la ñuy xalaatee keneen ku xalaatee noonu léegi nag dem nañ ay sa période parce que nit ñi ñoo ñi ñuy jiite ñooy gisee noonu ñooy yaakaar ne système bi benn benn koor rek la. ba ñuy joxe indemnité jox nañ leen man man man man man kenn ku am sa wërsëg na nga ko jël loolu moom y' a pas problème. mais bu ñu yaakaar ne benn corps rek fi nekk ñoom la yokkal ay indemnité bàyyi ñeneen tey ji aucun chirurgien bu duggee ci biir bloc équipe la anesthésiste réanimateur ba fa nekk le technicien anesthésie réanimateur il n'est pas dans leur même corps amul indemnité yi kooku am bu pensé que kay nelawal malade bi nekk anesthésiste nekk ci biir bloc ba bu médecin bi ñëwee ne day chirurgien bi ne day opérer moom nelawal malade bi je pense que médecin mën na ko opérer donc su ma nee damay jox euh, chirurgien euh, chirurgien bi indemnité jox ma ko anesthésiste bi je pose damay poser problème. oui xaw compliqué. Euh, jërëjëf Cheikh parce que ils ont fait <laughs> de laisser les autres. donc mm. naa ne dem uh-huh. loolu avant la que am na xam ni jox na mille yokkalaat leen fi cent cinquante mille mm. alors que ñeneen ñu jox ñu leen ko mais négociation yi mujj nii. Mm. je pense que ça ne s'est pas passé comme ça. donc c'est pas passé comme ça danoo toog même bu ñuy bu ñuy jox nit dañ koy jox par rapport à la hiérarchie surtout comme nous avons toujours demandé bu dee infirmier la bu dee infirmier bi nga xam ni c'est un docteur en soins infirmiers il a son doctorat il est de la hiérarchie A moo médecin bi nga xam ni il est de la hiérarchie A nanu tollale hôpital qui nekk le dadul dadul dadul dadul rafet ci ay dég dégg quoi moo tax ñun on préfère ce discours là ñu bañ ko am euh, ñi choisir nag nekk dans le corporatisme ça les intéresse moi j'ai président l'association des physiothérapeutes du Sénégal mmh. nekk membre de la fédération mondiale des physios ba ma fay nekk dama fa nekk ci cadre physio mais bi ma ñëwee ci syndicat dama ne man fa may liggéey sama sama sama service bi ma nekk tey jii malade balaa muy egg si man ka may wàcceel malade bi mooy mooy brancardier bi bu wàcc bu indee ci taxi wala mu wàcc ambulance moo koy moo koy moo koy jël bu ñëwee day jaar ci suma secrétaire bi secrétaire bi enregistré malade bi balaa malade bi egg si ci man donc ñooñu am nañ njëriñ au même titre que moi donc dama leen war a jox cër même bu dee yàlla moo teg tax loxo baaraam yi tolluwul mm-hmm. mais baaraam boo dindi ci ci loxo mu am lu ci manqué. Eh, eh, jërëjëf seex eh, xam naa daañu la daañu la fi dalal ah. xam naa ne peut-être jamono ji da nga xaw a xat tuuti mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. mais daañ daañu la woo comme ça nga ñëw teewu fi ñu waxtaan parce que am na yu bari yoo xam ne da koy mën a waxtaan ci euh, des bi euh, par rapport ak fond war na war na ci mën a waxtaan ak yeneen ak yeneen mais daal vraiment ñu ngi lay sant di la gërëm euh, parce que dañ la fekk ci réunion nga bàyyi lépp wax dëgg yàlla wuy suñu question Euh, ñu ngi lay sant di gërëm baax a baax. merci euh, nit ku baax la nit ku disponible la. am na ci solo wone na ko wone itamit ne paj mi ci Sénégal ba léegi saafara gi war bu ñëpp di xaar ba léegi amagul Seydina bu ñu sukkandikoo ci ay doom daanaka hôpital yi wéet nañu ndax personnel ga ca war a amatul recrutement yi sooxee na lool saay su ne nga dégg gars yi di ñaxtu mm-hmm. ci recrutement fonction publique euh, niñ ci doxalee euh, te jaaduwul daanaka par parloo gi ci am am ñu ñi nga xam ñoo gën a yeyoo ñu recruter leen ñoo ñe dañ leen di bàyyi ci salle d'attente bi ñu yàgg fa lool te am nañu qualification gu mat sëkk goo xamante ne bu ñuy tiimee malade mm-hmm. mun koo faj ci saa si wax na tamit ci bërëbu fajukaay yoo xamante ne xëy na euh, nguur gi mu ngi ci taxaw waaye nag mu ci gënee taxaw jumtukaay yi bi baax na naam nga am plateau médical gu méngoog jamono waaye am nag eh, ñu qualifié ñoo xamante ne dañ ko mën a saytu ba mm. la ca war yëpp ñu mën ko caa def mm. da ci am solo ndax eh, Dakar gi yenn saay nag fii la faral di ñaxtoo mais boo demee ci bërëbu fajukaay yi ne ci gox yi mm. nga xamante ne tumuranke gu métte métti lañ ci dund da ngay gis dëkk bu lëm goo xamante ne benn case de santé benn centre de santé benn post de santé moo fay nekk wéet lool amuñu personnel ga ca war amuñu jumtukaay ñàkkum kaaraange sax dañ koy eh, dund ci lu bëree bëri goo xamante ne dégg nga ko fi Seydina yenn saa yi Samba booy dugg ci ab poste de santé mhm. salfañi la fa ne gaañ ña fay faj loolu yi tamit euh, di gën indi jafe-jafe ci gox yi euh, laaj na dal ñu amal euh, ndëpp assise nationale jëm ci wàllu santé